jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre saa su nekk sur luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal euh, tey mercredi 19 mai 2021 ñu ñëwaat ak ci xibaaru revue de presse yi ma ciy ànd ak buukandu ziar naa la. Amina Ndiaye maa ngi lay fay di la nuyu di la di nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina mbokku internet Lutte TV ginnaaw ba ma la nuyoo rek di la di la baalu àq di la baal àq. di balwaat internet Lutte TV yëpp ak Amina Ndiaye rawatina nag ñi safoo di déglu revue de presse Lutte TV dañ koy njëkkee rek yaakaar naa ne ak journal suñu laamu dominati Boucar Ndour ba tax nag journalu suñu laamu mi ngi xëy di fësal ci xëtam gu njëkk ki nga xamante moom di Mbaye Boye coach bu b ay kàddu dànkaafu la ki nga xamante tey moo di Balla Gaye Amina ki nga xamante euh, nag say jinne ñemewu ko moom jàpp naa ne doo ko ñemee song jàpp Bombardier di li mu jàpp sax mooy que ne moom Aziz Ndiaye moo koy yokk fit di ko yokk di ko yokk courage rek di ko wutal mystique mystique boobu noonu moom moo koy dëgëral rek waaye bu dul a nekk revanche wala confirmation euh, euh, woon Aziz Ndiaye rek Balla doo du am fit bu mu am euh, ba tax na ki nga xamante ni moom moo di Gaston Mbengue dafa mel ni ngi démarché diggante Tapha ak Bombardier waaw waaye dafa mel ni moom toll nii moom côté am la des parce que Tapha moom pare na Amina euh, Tapha Tine pare na waaye Bombardier ci jëmmi boppam moom moo d'accordagul ak Gaston Mbengue pour taxawal euh, boobee revanche ba tax na Gaston Mbengue am na kàddu yu ci yëkkati adduna am na kàddu yu ci yëkkati moo tax moom Gaston muy laaj rek ba xam wala li muy laajte rek mooy est nekkul ne moom Bombardier dafa xaw a ragal rek maanaam parce que depuis mu ngi koy démarché pour seen revanche ñoom ci benn yoon li nga xamante moom moo di drapeau chef de l'état waa Kaolack daal dinañuy sélectionné waa Kaolack sélectionné nañ ba pare Amina Ndiaye ki nga xamante rek moo di Sélémélé moo fa war a nekk rek yaakaar naa ne bokk na ci seen équipe rek Amina Sélémélé ak Ngagne Sène rek ñeneen ak ñeneen champion yoo xamante tey ñoo war a représenté Kaolack Amina Kaffrine tamit tey la war a mais ñëpp duñ ci mën a bokk. waaw ñëpp duñ ci mën a bokk région bu nekk Amina Ndiaye day andi cinq mbër rek mu war a nekk rek cinq catégories de de de de compétition yaakaar naa ne Kaolack moom pare na Fatick tamit def na sélection ba pare Kaffrine tamit teel a war a def Amina. Euh, li nga ki nga xamante ni nag moom moo di Nande Fall euh, journal bi daal dina koy euh, fësal ginnaaw ba mu amee ñetti defet yu tax yu yu moo tax journal bi jàpp ne le 5 juin moom dafa war a daan rek ki nga xamante ni tey moo di daam seen pour mën a bokkaat parce que ñetti defet moom boo ko tegalee beneen defet waru la kon Nande Fall yaakaar naa ne sas bi si moom la gën a diisee loolu la journal bi xëy bi ne Amina Ndiaye

continuer di def ay yëfu dof looloo tax ñuy ñu leen di considérer des naan seen comportement euh, looloo waral nag mu daal di joxe ab réponse boo xamante ne tontoo na ko xol mooy mbëri du ñu ay dof mbëri ñu civilisé lañu mbëri ñu xam seen éducation lañ. kon ñi ànd ak mbëri des tamit Amina Ndiaye dañuy dawal compréhension rek di xool li nga xamante ne moo seen avril moom moo nekk bés bi nga xamante ni moo gën a métti ci carrière am waaye am na lu comprendre pour ñi ñi xam ko bu baax a baax a baax parce que moom su ma juumul ñaari defet la tegle moom Cheikh Super Jamono kon moo tax rek muy tànkaafu waate muy waxaat ak kàddu yoo Amina Ndiaye yaakaar naa tamit moo joon parce que sport moom daanok daana ànd waaye xëy na say supporter moom waaye moom dafa mel ni moo pareegul dafa mel ni moom pareegul xëy na rek waaram waaj defar waat li ñu naan yokku cere doole ñeex xëy na si yooyu la nekk jamono xamante ni tey Amina Ndiaye mooy BP Saloum numéro 2 moom nag mu ngi wax si li nga xamante ni tey moom moo tax maanaam mu dem euh, euh, nekk ak parce que si fusion Fass Ndakaaru bi am nañu mbër yoo xamante ni tey d'accord uñ si waaye moom daal xam leen xa gis am na lu mu gis si Kati Diop moo tax mu dem ànd ak moom Amina Ndiaye la mu gis ci Kati Diop moom moo tax mu daal di dem ànd ak moom moom Sibel ki nga xamante ni moom moo di Yékini nag fële na la ci daal di dem le 22 mai fële ca Niakhar xam naa ne tey Dakar moom jour boobu noonu kese moo fi am lamb yaakaar naa ne ñu ngi fa amateur yëpp champion yëpp parce que Mbayang Loum moom a fa ne rek nekk Amina Ndiaye te loolu yaakaar naa ne euh, euh, choc de feu la nar a nekk wala duel de feu la war a nekk comme ni nga ko waxee li nga xamante moom moo di drapeau chef de l' état bu Kaolack nag sélection régionale yi Dakar moom ab liste bu neuf joueurs la daal di génne. waaw Dakar liste bu neuf joueurs la génne Amina Dia parce que ça dépasse si région rek bu la neexee tey da ngay select yóbbu leen waaye dafa mel ni Dakar daal am na neuf yoo xamante ne jël na leen waaye tànn na cinq ba pare waaye ñeneen ñi xëy na da leen di waaw mën nañ bëri nañ Amina Ndiaye mën nañ see gisee ku si mel ni euh, ku si mel ni euh, nuñ Ibra Dione Amina Ndiaye Moustapha Dramé ñoo ñoo war a nekk si 66 kilos yi yi Gora mooy ki nga xamante ne a yóbbu si catégorie catégorie 100 kilos ki nga moo di Aline Badara ñu naan ko Zambala moom moo war a def rek 120 kilos Amina Ndiaye Omes directeur technique régional bu Dakar yëkkati na ay kàddu. moom nag nee na day dem regroupement rek Amina Ndiaye ni ki ginnaaw suba rek fas yéene commencé tàmbali liggéey bi parce que yaakaar naa ne fi mu toll nii moom de am na liggéey boo xamante ni tey war nañ ko war a mën a def Amina Ndiaye ñoom si nga xamante ne maanaam ñoom directeur technique yi ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy euh, mbër yi. ba tey ci drapeau chef de l'état bi euh, ki nga xamante moom moo di Bira Sène fësal nañ ko ci journal bi waaw mu mel ni rek maanaam ki nga xamante moo di Bira Sène mooy président CNG maanaam am dafa am modalité nag yu ñu exigé si li di sélection drapeau chef de l'état yaakaar rek am euh, ki nga xamante moom moo di Tafatine Junior ab Dap daan dafa mel ni nag seen choc ci 26 mai bi la allah. waaw Mbaytin Junior ak Dap daan Amina Ndiaye le 26 mai la ñu war a jàkkaarloo rek loolu nag journée bu riche la nar a war a doon Amina Ndiaye. Euh, ki nga xamante moom moo di Obali fësal nañ ko ci galaawu Fimela bi. waaw moom nag dafa confirmer rek parce que fële ca Lour Sessène moo fa daanoon ki nga xamante moo di Louis Thior numéro 2 final démb tamit wala barki démb fële ca Fimela mu daanaat fa Louis Thior 2 Amina Ndiaye moom Obali nag yaakaar ne daan na euh, kii di Modou Pouye ñaari yoon waaye nag Modou Pouye boobu Amina Ndiaye dañ ko gëdoon dafa nekkoon ci ay tolof tolof waaye fi mu toll nekk ñëwaat na vraiment ñëwaat ak doole yaakaar naa amagum na ñaari final kon ñu ngi koy ñaanal rek euh, yàlla jàmmam yàgg ku si mel ni Bébé tamit di ko ñaanal am Ndiaye fi mu nekk yal na ko fa yàlla génne. Adrien Senghor sa arène incha Ngor production dimanche bii ñuy mai daal dina fay miser lu toll ci 1 million de francs CFA. waaw ci 1 million bu bu Boucar Dione tëggee le 22 bi samedi bi bët set dimanche bi bu gars yi añee ba suur noppalu dañuy demaat arène Adrien Senghor rek góorgóorlu production ànd ak structure am tegalaat fa mbëri 1 million yaakaar naa ne loolu tamit yaakaar naa ne Amina Ndiaye week a bi jax na loolu euh, bi tamit dina Amina Ndiaye dëgganteem la rek ak ki nga xamante ni rek moo di moo di moo di Euh, nuñ nuñ ko waxatee damaa yomb a nag Amina Ndiaye xel jamono ji dama sama xel moo fatu waaye moom Garga 2 ak Mama Lamine bu Langsar Amina Ndiaye ñoo war a jàkkaarloo le neex lay jël Amina Ndiaye di leen tëgg moom nag fa waaye vraiment combat yu neex lay tëgg tamit. Euh, kii nii nga xamante moom moo di Doudou Sané dañ koo accueillir fële na euh, ci Diofior mu nekk ab accueil royal boo xamante ne neexoon na lool. waaw Amina Ndiaye accueil royal lañ ko accueillir moom Doudou Sané parce que dafa nekk xale nekk jàmbaar Amina Ndiaye fi mu yegg tey jomam moo ko fa yóbbu parce que xale bu ndaw la tey ay magam lay daan ay moromam ñu ko jiitu si làmb waaye loolu nag li ko gën a motiver rek mooy que ne maanaam tey jom ak fula ak fayda bi ne ci moom kon ñu koy félicité waat rek parce que dañ tegoon ñaari oto fa li nga xamante ni rek moo di ca Gaga Chérif mu daan fa général Malika Amina Ndiaye final am oto général Malika am oto moo tax bi mu ñibsee waa dëkkam di waa Diofior vraiment dañ si kontaan bu baax a baax a baax a baax Amina Ndiaye

wala nga ne parti PDS rek 200 millions yi moom maanaam dafa nar a am nag ay critères parce que dañ nar a mbër yi nga xamante ne Amina Ndiaye ñoo fa nar a bëri mais leeral bi mu ci indiwaat mooy nañ def attention bu baax a baax ndax moo gét parewul pour miser euh, somme yu nganda ngande yi ci lutte sans frappe yi waaw maanaam loolu maanaam li waxit la rek bu ko nar a def mooy maanaam sélectionné lay doon maanaam dañ nar a mbër yoo xamante moom lañ bëgg ñu bëri ñu andi leen def ko tournoi lutte simple leen ñu bëri seen biir en daal démarche yi commencé na ko waaye nee nañu ba ca jëkk mooy janoon ak waa CNG waxtaan ak ñoom ci lépp loo xamante moom moo waral gala boobee waaw Amina Ndiaye mooy yoon sax parce que gala toll noonu lu su mel ni 200 millions boo ko nee def gala de lutte simple moom Amina maanaam liggéey lay laaj liggéey boobu Mogat dina teew ci stade ba. waaw loolu lay xamal ne ne Mogat dina teew ci stade ba Amina Ndiaye bu teewee nag moom la Sénégal yëpp bëgg mu ñëw teew bu teewul tamit xëy na nit nit ñi moom bu ñu ko mu teew parce que Sénégal yu bëri bu depuis loolu dañ koy dégg di ko dégg te mënuñu koo gis ba bëgg ko xam waaye daal li muy def ci làmb daal jamono ji moom maanaam gën la ci waaye yaakaar naa ne ñëw na pour suqal làmb ñëw na tamit pour jàppale mbër